waaw ko jàmbur. mën naa la ci loolu merci beaucoup. xam naa da bëgg café moo tax indi la café. moo tax nam la nag. loo nekk. ana yaay. ngi si jàmm nga fa. ngi si jàmm nam rek. ana xale yi. Ya, ma seet si la. ah rajo baax nag. rek nga doo ñëw. ah léegi ah, ma fi jaabante ah nah, mais de ah ba may jaabante bu yàggee ñu ne sa lu mu liñ ko nommé ma fi de. mais lu raison parce que yow yow ñoo ndey. ah du da wax di seet des fois temps en temps fi jaar. ah sino sabanno mo na yaa ngi benn man di hmm. ko mi njëkkantu déggal bàyyil tooñ instant bi moom sama rakk ji xaw ma lu gars yi di xaar waaye nag ma xel lool nag dëkk bi fu mu ne ni bu ñu xamee na sa jëkkër am na dañ lay ndaye la magale yi ñëw te am na ñoo xam daawoo lu doon gis sax léegi nag dañ leen di gis nga yàq bi nag baaxul te dinañ na dar nag ne dar man ko ko xoolaatal li ngay def baax bul yàq de gaspillage yooyu bu ko def de te bu ma sama conseil baax ndax man sa mag ñoo bokk ndey ak baay <laughs> bul wax kenn dara nag waaw. amul benn problème dinaa si bàyyi xel bu baax. Mhm. nga nit ñu moom buñ jegee ne sa jëkkër léegi ministre la ku nekkay ñëw ku nekkay bëgg di ñëw. ñi nga daanu woon gis ñëpp ngay gis. jeex na waaye nag yow yaay dem ak sa xel xam ne ngay defal nit ñi. ndaye lay nag tegle. <laughs> yaakaar baaxul bëgg programme man. Mhm. sama yaa lay laajte nag. ah maa ko doon woo démb jotuma ko xam naa moom day sànni téléphone am rek. fu ne la koy teg nag. fu ne fu ne. noonu lay def te ba sonn jotuma ko. sama wala xale yi ko di jël. xale yi des fois dañ koy moom xam naa day bàyyi ba mu nee naa ko dekk garder sa sa sa pochette dekk dugal sa pochette ndax ñi lay woo wóoru urgence mais mère du jël téléphone da kay teg noonu rek xale yi jël di jël yoonam lay bàyyi téléphone am chéri na daa demoon mission. ñëw ñëwagul xam naa semaine bi daal wax na lay ñëw. waaye nag aw ma toogaay de damay dem léegi nii. da ngay toog ma ceebal la xam naa li nga bëgg bàyyi rek ma dem rek. da ngay yëndu ba ngoon. lu ñu togg. ceeb jën laay togg. Mm, waaw baax na bu nga ceeb bu xonk. bu xonk nga bëgg mooy sama yow la bëgg yàlla lay jaam yow bëggal rek. jeex na <laughs> mu ne xamul sama problème. sama booy bi ñu ma indil. Mm. njaga mm. ay magu jàmbur ñu wàccee sama kër gi. lu xew la noonu. njaga waxi bandi waxi saay saay su ma nee dama koy dàkk papa ma du génn kër gi waaw moom boo tuddee njaga rek. te xam naa ne yërëmtalu yërëmtalu bu gisee paa comme si que ni dara xewul mais bu paa demee. pourtant ba ma ko rombee waxuma dara nag mu ma nuyu normal. yii am nga sens fii ñu fi jot jaar ñëpp da leen a wulli ma ñu waay. man ne daf ma rus xanaa. xam naa est-ce que nekkul yedd biñ ko yedd. moo jeex na dinaa wax ak moom. man de li ma woon ci kër gi damaa dem ba damaa doyal. waxtaanal ak moom rek mu ko dàqalu dafa am njaboot xam nga. <sighs> man de wax mel noonu nag. dafa réglé mais waxtaan waxtaanal ak moom rek ku baax la may nduru nag ndeysaan ba ma ñëwee mu ma dugal ma dem na nga def savoir nu yoon teg man waxal ak moom rek waxtaanal ak moom rek temps yi lay passé sama salle de bain bi lu dugg li ñuy wax xamoo doo dem ca salle de ba tànk ca ndox ma naan wàccee na kër gi dëkk ba la jógee moo tax <laughs> doo ak moom rek ñun ngeen dinaa wax ak moom baax na ci nag li muy def nii mm. ndax sinon cambar cambar yi day bëri te bu ñu xamee ne yor nga xaalis yaay gis ñoo xam ne sa doomu bàjjan ak say doomu nijaay yi nga xam musuñu la seet si waaw loolu di problème waaw kay bàyyi ko noonu rek waxtaanal ak moom rek léegi xaaral ma dem ci biir. Mhm. commencé waajal añ bi. ah macha allah li nga bëgg laa lay def kontaan naa ci yow nag. dama laa namoon na xonk nag. cuur lay def jeex na bu xalaat. yaay si farak. <laughs> yàlla baax ban ba sa muy yéen eh sa yi nga war a bàyyi yow doon faral léegi ni sama sœur bi ndeke nii nga mel régler nag yow tamit nag xam nga ñun kër gi ay la amul eh bugguma yii de yow ngi lay faral léegi ni. xaa da nga bëgg ñu dàqale yow ko ba maa ngi lay jàppale léegi nii yow li ñuy wax nag dëgg la ah sa problème yow maa jégalu maa jégalu xanaa ñun ay tubaab la ñun ay akolaat lañ xam ay biisu ñun yoo lañ xam. kër gi moom boo fi duggee ba léegi tubaab laa jàppee sam bopp. gis na li nga wax yëpp nag maa ngi ci biir dégg lépp. waaw léegi nag da ngay régler nag maa ngi lay jàppale nag. mun la dàqee keneen la ñuy indi de. dëgg la sa morom. Hmm. te da yor jabar dëkk ba amoo jabar. amoo jabar de. ah jabar. aw ma jabar aw ma doom maa gën a vierge ci àdduna. Mm, damaa vierge ba yàqu fi mu ne nii malade la leen. Hmm. comme que kan Nicole nekk fi di mu ci waat la ni nga xatee sax yàq Nicole lu ngeen bokk daa waaw waaw waaw deret du fen bi mu kamu ne kamu laa oh, iya. kamu ne rakam nga xaw ma kamu am nga jëkkër ah wax rek waaw lu da nga may laaj loolu déedéet damay laaj rek ba xam am nga jëkkër wala am nga jëkkër déedéet ah ah ça tombe ça tombe bien mhm. man ko ça tombe bien fi nga may gis nii ku vierge toog ku oh, iya. sonn ku xiin deg. Film ini ilir mu ne nii ileer gu daf-daf bay laa yor fi mu dof dof la la lu àdduna bi coow te kamar la xamal leen nag gis nga li ñu naan góor amul ji bis bu la takkee ba nga allah sa bàjjen day taxee la sama budget toogee nii di ma madam, maa la ko wax te di mui li ni ni lii nii nii nangure rek yow kay li ñuy wax dëgg la yow waa man kii man yéen fu ñii fu foree kii fu ñu jëlee kii yow yow nit nga. nit waaw yow xool nga ma yow. bu baax koy waxal. yow eh xoolal foofu amul problème de ay nit la amul du nit mën na fii baax rek. ah ah waaw waaw li ma la wax pour kii la. yow mii neexuloo faral waaye ku ñuy teel dàq ngay doon. Ah, si yow de yow di ko danañ la dàq. man mii ñu préparé la. proposé amour amour danaa la proposé nga ne ma. war nga ma war nga toog fi yow di wax ak man man damay yow may ma man. nangu dama ne nga jóg may ma. wax wax ah, yow kii yëbaatewul. yéen a woon ndaw rek. Nicole. waaw moom kii moom nit la man damay bëgg a jombe damay bëgg a waaru kii kan la nii. waaw njaga yaa togg tey may génne sa xel mi ci li nga ne ndax la ah, dama xam ne kat yow kat fast food nga Max Mbergane moo ma yendu sil moo tax ma ne naa dugg si waañ bi defal ko ceeb bu xonk ah, xam nga moom ndeysaan daa bëgg ceeb baax na loolu loolu alam lébu la moom ceeb rek ah, <laughs> Euh, li yéen da ngeen yor xaalis. waaw ah. daf ni ko waroo nekk ci mu mu lay toggal heure loolu papa moom nee na bon di ko toggal moo tax ma ne naa dugg ci waañ bi di togg. Mm-hmm. heure bu demee ba xelam yedd ko rek dina bàyyi ma wut bon. Eh, na ah damaa saf loxo nag. Ah, xam nga sama góor moom loxo bi la taamu. ah tamit da ngay laajte. ah yow sama xarit. Hmm. sama xarit ba léegi kii dégg ko. Eh, yow laa koy laaj. biñ ko yónnee foofu ba léegi mu dem dëkk ba wootewul waxul dara benn yoon laa ko woo mu ne ma daa am lu may régler maa ngi ñëw ba tey paa moom da koo laajte ba sonn. Ah, man de man hmm. lu mu wax. ndax nee daa def soog. soog yi lan. maara deh tadi? Dia naa sok bernam mete. subhanallah Fratir keranjen lah. i Develop mada sexe i xam nga ni développement de sexe mu Develop naan développement Develop lama mah. la jaga gen yow njëkk génn ya li nga ya nekk nag fracture yee ah fracture crânienne develop de sexe ya, lama mah. wax ak ak benn élangos élangosation dugg rek Dulu de vaccin voilà ay ay ay yaa Yang ma nakar di ma alon jaga bal dengan li nga ya, njaga génn si li nga nekk. feebar na de. kon sonn na de. waaw loolu lépp la boole. ni ma ci insister. Hmm. élango station de vaccin na ma ko waxee. <laughs> njaga bu ma dajji waaye bu ma reetaan loo xam nga yow mu ngi ànd ak accident après di ma reetaan loo tamit yow tu n'es pas sérieux quoi.

naa xool pexe bu may jël. léegi nooy def yow. dina du dina la wax dina la a essayer xool keneen ci dëkk ba kon comme moom instant bi dafa def soog xam nga du mën a disponible pour ñëw. dañ jéem a xool keneen koo xam ne dina ko mën a wuutu ci kër gi rek ba fa ba le temps que muy di mën di ñëw. waaw baax na baax na ah def naa loolu mooy solution parce que yow mënoo nekk ci bunt bi bëgg a ñëw di gérer jardin bi mënul nekk day métti moom. waaw mhm. ah, baax na hmm. yow kay li fi wax lépp hmm. yow. waaw loolu de. wax <laughs> sa sa bi. génn sa xel ci moom. dimbali ma rek dimbali ma xa xanaa man man damay damay gis. amul jëkkër amul jëkkër célibataire la. célibataire waaw. du lil waaye rasuuli dama la koo ñaan jëmmi rasuuli may ma ko. dëgëroo fit yow. ma sëyeeg moom lu àdduna di <laughs> gis nga ko triple jéeg la moo la loo moo la laaj day toog sa kaw nga dee. yow it. Eh. atténoo ko. Eh, ndax xam nga ne man damaa yow da ngaa wér ku vierge nu ñu koy maye ak koo xam ne triple jeeg la. nga ne ku koy maye koo xam ne jeeg la. Ah, triple jeeg kay lay wër. ku xam da laal nga dee génn sa xel ci li nga nekk demal damay toogu. Ah, bul xalaat. kaana du xalaat. mais papa moom mënu wax ni dañ koy invité télé ma ñëw toppaale ko man nijaayam seconde ko. ndeysaan àddunaa ngi nii de xam nga ni xol ko fi mu toog jekki sikkim sama sikkim yu leer maa ko ci daggal rek ñu sikkim bàyyi sikkim nijaay yorul doonul nijaayam nag doonul bàyyam nijaayam la doon ci sikkim ndeysaan waa yàlla mën a sedd de ki nga xam maa ko fayal mu jàng yow xam naa daal yàlla daal ni muy tey nekk sama kilifa nekk kilifa papa yàq nga ko de quoi mu wax nii yow jub dafa amati fenn mooy yow euh, booy da ngay font mooy yow bu yow ah, yow nga xam ni faloog faloog folleeku comme xefe xib booy tee ngaa tibb ci alal ji jox ma jox jox sa nijaay tibb booy bu xee buñ la wàccee nga waaye de buñ la wàccee te yooloo kër nga waaye de. nga xamante ni fii niñ lay folee nga xamante ni état moom buy wàcce moom dalay jékki-jékki rek ne la désécré nañ la tey désécré nañ la nga nga waaye di fekk na ti boo dara waaye di nga ah, parce que gis nga gars yi fii moom ku wàcc rek nungu sin ngay nekk ndax am na loo tibb dekk toppal fii naan da ngay jub jublu rek ba waaye di xam duñ toog seen kër kër jàmbur yi rek la ñuy fréquente toog doo xam di guuraala fu ne ñu naan naan la indil ma café jëndal ma kafe lu kenn xamul dina toog seen kër yi moom fi laay taxaw du ma dem fenn kër gi wóor ay pétrole lu nekk sàcc yi moom dañoo gaaw. aywa <coughs> papa waay yaa tot amul dara. booy ñu tuur ñu ni wër. ah eh, Ndiaga. Ndiaga ma kaay. waxal. Eh, Ndiaga. Ndiaga sànq ba léegi. yaa ngi gauche droite di nguñum nguñumi ndiaka dina la wax ben affaire gis nga ndiaka man kilifa la ci kër gi de yow kilifa nga dafa may ma tout rek ce kilifa maay kilifaaw te gis nga ndiaka kër gi suma ma bëggee nga tok fi ding fi tok suma ma bëggee nga génn da ngay génn ndax papa mën na ñew ma fena la fi fen wu reew yo xamanteni bi dee kër gi suur bokk doo fi waye bo fa fele mo duul la la duul go xamni sama lamine bi ma xam mom kéro fi nga tok xam fi nga tok ak madame mo doulal la lo xamni do do ko fatte bu mukk waaw sa lamine bi mu da lekk sama lamine te ñu robut waaw ah, legui yow doulal nga ma waaw fenal nga ma ah. ban resultat nga ci am bu gis nga ma ngi ci kër waaw ah, léegi euh, euh, ndada gis nga dinaa wax ben affaire gis nga kër gi waaw man nga yow fi nek gisou kenn ku lay waaw te gis nga moy tour bi li dina la ñam ba nga xamni ne ñam ah non rek non rek yow jaga jaga mën nga yem wala mënoo yem ah da nga rësi lii man maa yëngal ah da nga rësi lii damaa yëngal ah su lii dama koo lijjanti nga ni ah kon da ngaa dër gis ah mo xalam bu mo ah ñam ñam mo sa di eh eh eh, eh teman man orang morom laa ko sama papa nga wow kayak ma cër di rumah loolu laa mën dégg mu am de doxal doxal namal nama nga saralee ko ci biti ma ne ubbil bunt bi ndànk waaw laa ilaaha illallaah wala naa la xamal leen bu jéngu woon rek toj fi waaye heureusement